salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football TV ñu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk internet yi te damay ñëw rek tontu seen benn laaj euh, si ay jours yu xamante ne posé nañ ma si question keneen ki di Henri Saivet keneen ki di Sofiane Diop keneen ki di euh, Bouna Sarr est-ce que am naa yaakaar réellement gis nañ en équipe nationale du Sénégal si laa jéem a ñëw tontu wax ñi nga xamante ne maa ngi gis boobu léegi ngeen demee laaj les primaires yi blouson yi ballon yi maa ngi gis seen ngeen koy laajte ñu bari tontu naa leen mais ñi xam ne dañoo bëgg mu gën a yomb contact leen dañu ñuy contacter par téléphone wala whatsapp au 77 352 31 01 peut être mooy sax gën a gaaw te di ngeen am li ngeen bëgg donte euh, voilà dinañ mën a nekk en contact foofu noonu comme ça yéen ñi bëgg maillot blouson xam donc ak lépp lu xam dafa ci wàllu sport au 77 352 31 01 ngeen ko am sur seen football TV mbokk yi liste bi suba la war a génn donc ñëw na ba pare euh, ñu bëri ñu may poser question. Euh, par rapport ak ñenn yenn yenn si joueurs yi xam nga donc kenn ki di Henri Saivet keneen ki di euh, Sofia Diop donc ñoo lañ may laaj ak Bouna Sarr Bouna Sarr def naa benn vidéo ma ne maa nii latéral jeex parce que Sabaly dafa blessé Formose dafa blessé donc Formose daa ni reprendre na à l' mais deux latéral droit amoo ko donc foog nga am indi deux latéral def naa leen benn vidéo andi naa latéral ñoom Moussa Wagué ñoom euh, Alfred Sarr Dionkou Mamadou Mamadou Mamadou Sané Euh, non fa Fadiga bari nañ loolu ah, ay Thierno Balde yaa naa tellement mënu ma lim ñëpp def naa ci vidéo ba pare xam nga bu mu si xuusaat ñu may laaj nag Kody Dramé lan moo tax waxoo ko Kody Dramé dafa wax ne amul ben lien ak Sénégal Gambien Gambien la quoi c'est juste que yi dañu jàpp ne Gambien ay Sénégalais ci côté moom waaw mais moom nee na amul benn lien ak Sénégal moo tax may def euh, latéral droit yi moom boole boolewu ma ko si quoi xam donc joueur la bu ñu suivre mu nekk lisi def nañ suñu ay découverte am nañu ci moom yaakaar et tout mais quand loolu boo ko amee comme information aussi bëgg pour Sénégal voilà day xaw compliqué un peu euh, surtout que am nga ñeneen ñu xamante ne euh, place yooyu noonu léegi euh, ndax pour fait partie des meilleurs milieux terrain wala ce le meilleur actuellement si quoi si en grande forme même forme mais quelques matchs alors qu'en depuis le début de la saison, 4 buts, capitaine du côté de Pau. Mais, mais excellent, excellent. Et Bolon Holtei, quand on a gagné, il a fait une vidéo. Vous faites en termes de temps, en termes de performance, mieux terrain, comme ki kama Cheikh moment où nous gagnons mon Mamadou mais à part ça que mën a génne man aw si yaakaar Aliou Cissé woo ko wax dëgg fa yàlla aw si yaakaar bu ko woowee dina doon surprise c'est que que bu fekkoon deux matchs là doon naa xalaat de 30 jours dina barre xam 30 jours dina dina baax quoi mais ni ni ni bu ko woowee dama naan dinaa kontaan trop parce que man franchement le côté technique surtout que le milieu terrain bi amul amul ku koy animé quoi créateur jeu tuuti quoi ko xamante ne mën na nekk la lien entre les les milieu xam nga pas mal ça il joue trop latéral même si nag léegi mooy avancé xam nga un peu plus en haut parce que c'est c'est c'est plus intéressant pour l'animation xam nga donc et donc mais en receveur mooy genre le genre de joueur c'est comme Sabaly ñoom li ñuy décevoir en équipe nationale du Sénégal rare na de mu football match nga ne en receveur tey def fi dara Rarement, na donc saison bu mais ma si pas plus que ça Bouna Sarr moom ma ci pour moi, problème dafa am si ak euh, ko bu problème amul nag euh, dina ñëw xam nga loolu pour man ak quoi donc de droit Jour quoi franchement pour moi, nii nii nii à parle. parce que maa gis ñeneen ñu non xool ñeneen nangam nangam bëgg xool Noah man dama bëgg gis Noah xam-xam lu mu capable mais xam naa ne en terme d' expérience nga donc surtout sa match la après ñu jógee donte match amical parce que mooy dernier match test bi pour man euh, équipe nationale mën na ko relancer waat quoi mën na relancer waat Bouna Sarr xamante ne doonu woon Zé Berna noonu la ñu amale woon njëriñ donc Bouna lii rek laa si xalaat bu fekkee problème am gëm naa dina ñëw bu fekkee problème am du ñëw quoi carrément da nga naan Aliou Cissé li mu doon woo lay woote et voilà mu des ki nga xamante ne mooy dégg euh, Sofiane Diop Sofiane Diop Sofiane Diop Aliou Cissé dana ma woon moo ngi avance conférence de presse xam nga donc ça avance bien ça avance bien rek man amoon naa njort bu rafet pour que pour mu ñëw Sénégal si liste bi li ko waral lenn la dèjà dañ ko posé question par rapport France euh, Thierry Henry nangam naa mu ne mu souhaité leen bonne chance boobu def ko objectif waaw Wii Sport dem foofu di ko Sénégal mu ne Hollande oh saa yi du ma wax bu ma jëlee élément yooyu ma dajale ak Aliou Cissé lu mu wax dama si bu rafet na war na mën a ñëw quoi si wax dëgg fa yàlla. maintenant nag vu que presse bi kenn ñëw presse bi gis ñu wax di nga gis kenn ñëw joxe kooloo parce que ñu presse bi ku nekk fi ngay jëlee fi ngay jëlee sa information di nga gis léegi benn rëcc ñu ne la noo leer na nangam nangam comme man parfois dina dina ma leer parce que daa am may jox affaire yu ay sources ay sources yu crédible loolu lay demee noonu si laay basé parfois pour football une benn information mais le fait que dégouma ci dara te suba moy liste bi te je pense que même liste bi lañ wax né euh 25 joueurs yi ngeen gis presque ñoy demaat coupe d'Afrique je pense pas que dina bokk ci liste bi quoi yaakaaruma bu bu bu amee dinaa kontaan trop mais aw ci si yaakaar pour suba euh, ci liste bi mu mu mu bokk si donc 3 joueurs yi ngeen mën poser question ba leen ci commentaire ngeen wax seen xaar ak seen gis ma jaajëfal leen nag bu baax baax wax leen ma beneen sur football TV.